sëriñ bi xaadalahu laahu maxtaar la xoo nee na del tuub lépp lu nëbb ak lu feeñ di dellu ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne dara du nëbb ci moom del xisaab sa bakkan ci gaawee tuub tey tuumaal sa bakkan képp koy tuubal yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ko boo de tuub nag da ngay jàng alquran képp ku setul ci ayib lu mën a gis yu nëbb yi bul topp kenn ci ak mu yàlla tabaraka wa taala yàlla na la yàlla tabaraka wa taala defal tawfiix waaye loolu yellul del jariñ te bul lor kenn del jàmm yàlla tabaraka wa taala ci topp ay ndigalam sëriñ bi xaadalahu laahu maxtaar lahu nee na del taqoo koo xam ne du saggan ci tudd yàlla tabaraka wa taala ak fàttaliku del moytu lépp lu lay sàgganal sab xol del taxaw guddi loo ndax mooy aaday borom may yi képp ku la woo xoolal bala ngaa wuyu bu woo ci aw yiw wuyul budul aw yiw bul wuyu bul jëm ci ko topp bakkanam ak banneexam dal laabire képp koo gis ginnaaw boo sàmmonteeg yoon ci xool bu dal del tuubal suñ borom mi gindee ci saaxir ak baatin tey farlu sëriñ bi xaadalafu laaf maxtaaraloo <clears throat> bi mu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaan na suñ borom def ko muy buntu njekk moom mi bind xaraf yi door a wax lii del taqu ndigal yàlla yi tabaraka wa taala tey moytu ay tereem kon da nga am aw yiw del jublu jëm yàlla tabaraka wa taala ci lu nëbbu del jublu jëm yàlla tabaraka wa taala ci lépp looy jàpp ak lépp looy bàyyi tey topp gërëmam dee ko jàmm ci imaan maanaam dee ko jaamu ci imaan ak islaam ak ihsaan tey wammatu teel moytu ak kéefar ak saay-saay ak bokkaal bul ci jëm mukk lii nag ak laabire la gu jëm ci yow ak ñi tolloog yow dee leen ci sàkkoo dee leen ci euh, sàkkoo ay xéewal subhaana rabbika rabbil izzati amay sifuna wa salaamun alal wa walhamdulillahi rabbil alamina euh, sëriñ bi xaadalahu lahu maxtaar lahu nee na bépp murit bu sóobu te bëgg a yegg ci yàlla tabaraka wa taala na yeew ci mbir yoo xam ne def leen ak topp la waaye bàyyi leen itam ak waru la yooyu nag mën nañu juróom ñaar leen taqoo dana am ak àgg wala ak kawe wala ak màgg wala wala wala nee na yooyu ba ci jiitu moo di liggéeyal sëriñ bu léebir ngir jëm yàlla tabaraka taala moom mi nga xamee ne moo wàccee alquran ñaareel bi moo di bàyyi diingat ci saaxir ak baatin nekk ku set ñetteel bi moodi di xam lu farata jëmm yi ñeenteel bi moo di wammatu ànd ak rafet ndax ñaaw njort day xalake juróomeel bi moo di ak ajo gu wir ci dulul xol buy tawat ci sikk wala deng dengi juróom-benneel ba moo di sopp koo xam ne day waral ak bëggam gënal la sa bëgg juróom-ñaareel ba moo di ngay bañ a sàkku dara ci yàlla tabaraka ko taala lu am njariñ te jaaree woo ko ci moom yii nag ñoo di yi jiital ñu jëm ci képp kuy sàkkoo mucc ci ay njaqare <coughs> sëriñ bi xaadalafu laax maxtaloo neen maa ngi nuyu sama xarit bi nga xam ne du ma ko tudd mukk ci lu dul tudd gu rafet moo xam teew wala teewut maa ngi koy nuyu nuyu bu koy fegal jëpp lor ak bépp ñaaw teef ak waru ak ay maa ngi koy xamal ne lii nga jëmale ci man bég naa ci yàlla na la yàlla tabaraka wa taala fay moom mi gindi mu dar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxtu nekk yàlla na ngay bég sa xol di ubbiku ci daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi aar ñi nekk ci àll yi ak taax yi sëriñ bi xaadalahu lahmataloo nee na maa ngi nuyu yow mi nga xam ne sagleer feeñ na lool ba nga set wecc ngir topp diine yow sama xarit bi sant kan yow mi nga xam ne nee nañu suñ boroom da ko xëcc ci baab xolam not ko yow sama xarit maa ngi lay digal ngay topp ndigal yi tey moytu tere yi maqaama mu nekk nag am na mu ko féete kaw del muñ tey jihataan teeg sa bakkan bul diglu waxi nit ñi bul xool nda bul xool doxal rek jëm ci yàlla tabaaraka wa taala saa su la yërmande yàlla tabarko wa taala dikkalee del sant tey muñ jëpp lor ak tiis na nga xam ne gestu nit ñi kat ay kiiraay la yuy dox diggante moret bi ak yàlla tabaaraka wa taala kon del xalaat man nag duma la fàttali di la maanaam du ma di la ñaanal yàlla tabaaraka taala mu may la ak yiw ak mbégte sëriñ bi xaadalaku laax maxtaalaxoo nee na lii de mi ngi tuddu natu khalima ak da ngir jëm yalla tabaraku taala mi ma may ak sop tadribul khalam wal midaat li wajj iman jada bil widat ni na kep ko xamne da bëgg am wep yiw tey ëlëk ci lu dul jenn lor na japp bay di te jëfe li mako ci ciy digal del sant yalla tabaraku taala ci xewali te bul ci top say banex del ci yalla tabaraku taala te sukkandiku ci mom te baña tayel di ragal yàlla tabaraka wa taala ci lépp tey muñ ci jaamu yàlla tey sikar tey sant del takkuk alquran ak sunna si yonent bi alayhi salatu wasalaam tey moytu bidaa yi ak bànneex yi del màggal nit yàlla yi xam yàlla tabaraka taala tey dogal ngant mboo defi del saxal ay wird tey bàyyi yoramal yi ak taawil yu doyadi yi ci ay nettali subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wassalaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamina sëriñ bi xaadalahu laxmataloo nee na mahmoud maa ngi lay dénk ngay jublu ci yàlla tabaaraka wa taala ci lu nëbb ak lu feeñ moo lay indil njariñ moo la mën a lor waaye du mbindee yi ñoo la mën a lor lépp loo xam ne ngërëm yàlla tabaaraka wa taala ma nga ca bu ca ragal yeddaa ngay mbindeef fi de bu la yàlla tabaaraka wa taala gërëmul ngërëmul mbindeef yi du la jariñ dara dara dara dara kon del sàkku ngërëmal yàlla tabaaraka wa taala te bañ a sàkku ngërëmal nit ñi bula ya yalla tabaraka taala gërëmee mbirum ay mbindeefam du la wàññi dara duñ la lor dara mëna luñ la lor sëriñ bi allah neena yow ya abdullahi ma nga lay dénk nga ragal yalla ya tabaraka taala ci waxtu wu bo boo muccu ëlëk am amuk texe del satal sa xol tay maytu bidaay tay samonté tay takku sunna si yonente bi alayhi salatu wassalam del andak worom warom bul warom del fexé saafara say ayib tay baña a sàkku kenen lépp loo xam ne yàlla tabaaraka taala moo la ko tere dee ko moytu kon def li ma lay digal dana yomb ci yow lii nag tuuti na waaye am na njariñ lool dee ko sàmm yow sunu borom yow mi nga xam ne am nga njëkk dara di am te yaa amal lépp lu am te dangay nekk di am ginnaaw lépp lu am yàlla na nga nu may ab génnuwaay xëy na moo di ak mucc allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam sëriñ bi xaadalahu laax maxtaara lahoo nee na man mii di sàkku yàlla tabaraka wa taala ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yaakaar ci ñoom ñaar ngërëm ak nangu may dénk sama murit bu jigéen bii soxna sama baay bu ndaw Penda Jóob yàlla na lanu yàlla tabaraka wa taala jéggal te faral nu bépp bàkkaar maa ngi lay dénk ngay muñ tey ragal yàlla tabaraka wa taala ci lu nëbboog lu feeñ kon dana la jéggal del sax ci ak tuub tey farru te bul jëm ci dudul ak njub del nëbbatu tey suturlu tey suufeel sa kaddu kon des na la sutural li fi ak yaangi dundu bul xol ku dul sa borom kër ci wala ko xamne dagan na nga xol ko del moytu jëw ak reey tey noppi tey muñ del moytu fen ak ngistal ak aaw te moy naw say jëf ak wax say jëf yu baax ngir daray aduna naka nona mbagnel del ak deug tay selal tay lebir kon da nga amuk jagle bul tebar bul sakko top yalla tabaraka taala ci lu top sa borom kër bu ragal yalla bobu tekawé manam sa borom kër bobu nga xamné dafa ragal yalla tekawé kawe na nga xamné ne jigen jigéen mi ngi ci top seeni borom kër jigen jihaatam deug deug moy top borom euh borom kër bu gërëm soxnam suñu borom ko bu ko gërëmul yàlla tabaraka taala du ko gërëm faaw na nga xam ne lépp lu tukkee ci nit te yàlla tabaraka wa taala taxul ak neen lay doon na nga xam ne kon kenn mënta mucc ci bëggalum yàlla tabaraka wa taala te bayiwul ñeent yi te mooy fen ak rëy ak nay ak ñaaw njort ñeent yu am solo yu ma ta bàyyi xel sëñ neen nanga xam ne kenn mënta mucc ci mbëggalum yàlla tabaraka wa taala te bayiwul ñeent yi fen rëy nay ñaaw njort loolu nag soxna soosu la doon waaye soxna yëpp a ngi ci biir yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te fayal ñu Seexul Xadiim jërë ngeen jëf ñu ngi delloo tuub di jéggul baax ci kàddu gi ni mu demee ngir soj rek moo xam ne moo ñu jàpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suba ak jàmm allah